mbokk yi xarit yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci euh, sunu people TV ñu dikkaat ak yéen ci li gën a fës ci euh, internet bi internet bi nag li ci gën a fës dañu koy door rek mbirum euh, Serigne Modou Kara ak lii lay di centre de redressement yi nga xamante ne jamono yi ci ginnaaw amoon na fi ab coow lu rëy ba am ci ñoo xamante ne génn nañ ci daal def ay sorties yu doy waar jëmale ko ci kii di Serigne bi waaye nag yi nga xamante ne moom moo di Serigne Modou Kara gannaaw coow loolu lépp moom nag dégg nañ la nga xamante ne wax na ko ci moom daal nee na moom kii lee di Serigne Touba moo di avocat am ndax nag moom li mu jublu woon ci centre yi lu dul euh, defar doomu aadama ak xale yi nga xamante ne dañu jàddoon yoon mu tegaat leen ci yoon donc ko ci taxoon jug waaye tey tamit génnaat na ci sit bi di Seneweb daal di remercier nag ñi nga xamante ne depuis coow li ba mu amee ba tey ñu ngi koy jàppale bu baax a baax ci euh, conseil yeeg di ko wax li nga xamante ne moom moo di li mu nekk nii yàlla na ko ci yàlla taxaw ku ci mel ni Kumba Gawlo Seck euh, sëriñ bi mu ngi ko ci remercier ak kii lee soxna Aïda Diallo waaye tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo mel ni Mame Matar Gueye bu Jamra ak ki lee di euh, Ahmed Khalifa Niass moom nag bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàppale kii di sëñ Modou Kara di ko soutenir bu baax a baax ci jafe-jafe yi nga xamante ne daal dina koy am jamono ji mu jëm ci mbirum centre de redressement yi beneen xibaar ki lee di Mame Goor Diazaka moom nag étudiants yi daal dinañu taal li nga xamante ne moom moo di album bi mu mujj génne ndax nag sorti ba nga xamante ne defoon na ko ci euh, jëmale ko ci étudiants yi di wax ne ay kamantanwul lañu daal di wax na wax yu yoo xamante étudiants yi moom nag defaat na sortie di accuser kii lee nga xamante ne moom moo di euh, Ousmane Sonko moom nag la mu wax daal bokk na ci ne lépp lu ci ginnaaw yëpp xam na ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko def beneen xibaar mu jëm ci mbirum kii lee di euh, Pape Cheikh Diallo gannaaw mbirum racisme bi nga xamante ne duggoon na ci match bi doxoon ci équipe bu Demba Ba bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Paris Saint-Germain kii lee di euh, Pape Cheikh Diallo ca lendemain ba moom dafa toogoon di waxtaan ci émission bi lee di yeewu xamante moom moo di waxu Demba Ba boobu noonu doon ci wax mujj gi nag mu nekk di foo ak saboté ca la wax la nga xamante ne moom moo jëm ci mbirum racisme bi di ci tooñaale di wax na ñun nag neexul ba neexul waaye dañoo nduróog ay euh, golo loolu nag bokkoon na ci li nga xamante ne neexul ñi leen di euh, sénégalais yi moo tax ku ci mel ni Thierno Bocoum def na ci ab sortie nee na ko loo mën a mën a tooñ nag am na yoo xamante ne kenn du ko tooñaale waaye kii tamit di acteur bii di Gorbatchev moom mi nga xamante ne aussi bokk na ci série bu ci mel ni maîtresse d'un moom tamit def na ci ab sortie daal di koy euh, taajaat li nga xamante ne moo di ci àndam Pape Cheikh Diallo moom tamit gannaaw ba ñu ko lynché ci li nga xamante ne moom moo di euh, site internet yi génn na daal di jéggalu nee na moom lam ci jublu woon rek moom mooy daal di divertir sa ñi nga xamante ne ñoo di téléspectateurs yi loolu nag bokk ci li nga xamante ne wax na ko waaye nag jëlu ci woon benn yoon ngir euh, ngaañ ak euh, di saboter loolu nag bokk na ci li nga xamante ne ki lee di Pape Cheikh Diallo wax na ko bokk na ci nag yeneen xibaar yoo xamante ne mu ngi jëm ci internet bi ba tey muy xale bu jigéen boobu nga xamante ne moom euh, bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo lëmbee jamono ji internet bi moom ak Lirou Diane sortie boobu nga xamante ne defoon nañu ko ba Sénégal yi moom itam daal di ko yàq lu mel ni xeme moom nag daal dina génnaat ak jéggalu ba jooy loolu nag bokk na ci li nga xamante ne moom moo dox dox ci diggante moom ak sénégalais yi daal di jégalu bu baax a baax ñu jeexale ko ak kile di oustaz Modou Fall moom tamit génn na ci site bii di Dakar a daal di jël nag défense ki nga xamante ne moom moo di kooku di Mo Gates ndax nag nee na la nga xamante ne Mo Gates ma koy def alalam la moo ko moom donc lépp loo xamante ne def na ko ci loolu yoonu kenn nekku ci nee nag bu fekkee ne dafa am ñoo xamante ne daf leen a naqari nañu xam ne loolu yëpp seen problème la waaye moom dafa défendre ki nga xamante ne moom moo di lee Mo Gates mbokki xarit yi jërë ngeen jëf wéy leen di abonné ci sunu People TV